ami site internet net bi tv li gën a fës ci xabaat xabaar nag dañ koy door rek kii di nga xamante ne nag moom mooy maître Ngagne Demba Touré nag moom nag ni ki tey ji rek nañ ko fi nga xamante ne nag moom mooy ci tribunal bu Matam wante nag mbooloo mu takko takku rek moo ko fa daal di fekk si bu ñu sukkandikoo ba tey ci ñu naatangay RFM ñoom nag dañu daal di xam ne rek mooy greffier bi nag ni ki tey ji rek la daal di rejoindre fi nga xamante ne nag moom mooy Matam nag mbooloo mu takku rek moo ko fa daal di dar accueil bu populaire la am macha allah ndax ay dizaine moto Jakarta nag ak ay nit ñu bëri bëri rek ñoo xamante ne ay responsable Pastef lañ nag nekk fa nga xamante ne nag moom ca Matam ñoo ko daal di dara ci buntu bi war a soogi ba Matam jamono ji nag yegsi na ak jàmm fi nga xamante ne moom mooy ca Matam waaye nag police bi rek dafa mujjee tasaare mbooloo ma ndax dafa gis ne rassemblement bi nga xamante ne def nañ ko fa nag amuñu benn autorisation bu ñu sukkandikoo ba tey ci suñu naataango yi fa nekk ba tey rek ki nga xamante ne nag moom mooy El Hadj Ngagne Demba Touré moom nag yëkkati moom nag la mu daal di xam ne moo di fonctionnaire la te ci administration foo xamante ne rek yóbbu nañ ko fa ci biir réew mi rek pare na pour liggéey fa ndax liggéey rek la xam waaye terewul nag xeex bi nag dina wéyandi ndax moom nag dina pare pour jàppale bu baax Ousmane Sonko mi nga xamante ne rek dañ koy daal di xeex à tout moment bi nag tey la gën a wàllu gën a ay waaye fépp foo xamante ne nekk na fa ci Sénégal rek dina liggéeyal boppam liggéeyal Sénégal wante nag liggéeyal ki nga xamante ne nag moom mooy Pastef tey rek kii di nga moom mooy El Hadj Malick Ndiaye ni rek daal dinañ koy defeere fi nga xamante moom mooy ca parquet ba ni ki rek mooy appel à l'insurrection ak li weeru mars nag lañ ko doon toppee nag moom moo nekk mbir moo xamante ne nag ak fausse information boo xam ne doon na ko véhiculer ginnaaw cinq jours nag la defoon foofu ñu daal koy libéré jamono ji nag lañ ko jàppaatee nag moo di ne dafa rek dinañ koy defeere moom ci yeneen ñu jotaay xibaar jërë ngeen jëf ci teewlu bu leen fàttee abonné ba saale cloche ngir am yeneen info